وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور Matar Ngom sopp na bi jërëjëf moo wax ni at mi njëkkee jël juróom benn fukki complet ak ñett mhm. jox ko Serigne Saliou Mbacké nee na dafa jël kaala gi teg ci bët yi turu xew comme yàgg mu sikki daal ne lii de ay wax la ci man ndax dongo yi de tak eggoon naa ci ñoom di dajale saako sumul yi muy saako sumul yi amoon mhm. daan ko fëgg di ko lem di ko denc ngir mu doon ay koddaay ci ñoom te tayeeru Pikine yee ko ñamoon te tey ru Pikine yekk tam ah. kon déggaloon si sax damaa fekkee waaw góor dégguma de damaa fekkee waaw moom xam na ci dara li damaa fekkee laa wax loolu seede xam nga wax balaa neex moom seede damaa fekkee nee na mu dajale ko dajale ko ba bi mu ko ñëwee maanaam ki xam na ni complet ak ñett la yem ah. dañuy wax ji de ak yow mag mu mag bi ma ñëw nee na bi mu ñëwee complet yooyu yóbbul ko ko ne matul waaye li mu ak cofee la mag yéene moo tax bu ñu dël Sëñ Tuubaa mu dajale loolu ñëw fekk ko mu wàññi ko mu doon duble loola kon moom li ma bëgg la ko yàlla defal ak Serigne Saliou te bu dul dara ñu ndaw ne yoroon nañ ko bor xam nga lu mu wax jox leen ma ndaw ma def te la Serigne Touba daan def ci ñoom segam yelloo moo koy ma segam ma barkeeloo ko man Serigne Saliou loolu bor la boo xam ni kuy jullit ku ne war nga cay yam. na ñëpp jóg màggal Serigne Saliou Mbacke na ñëpp jóg taxaw ci kaw màggal Serigne Saliou. ko kenn du moom moo ñu tee dugg safara kon ñun ñëpp ñu dem safara danoo danoo dugg si fii barki sëñ Bamba di yëngu ci xeet yu waxtaan waaye dañuy nab nabi kon boo ñëwee def tant bi te taxawunu maanaam seere suñuy kàddu du nuy goro waaye noo ngi lay sant baax di la bëgg yow ndax dara nga ji nga dëkk ci du lu teral noo ngi ñaan doole Serigne Touba na la ko Serigne Touba wan bala ngaa ba mu gën a yàgg balaa leer ci barke Serigne Touba kon sant nañu baax ngeen baal ma eh jërëjëf Baye Fall yàlla na yàlla wéral baat bi. jërëjëf Alaaji Serigne Cheikh jërëjëf yàlla na yàlla fay la na yàlla karta na la ci barke Seydina Muhammad ñàkk xam la rek waaye bu ma teeloon a xam ne yaa ngi fii dara jëye Cheikhul Khadim fii lañ dee tegal séeréer bu mag la toog. man dëgg am naa ku ma tudd ndax loolu mën a am sama ñàkk xameel gi nag moo ko waaye bu ñu mën a teeloon wax ne yaa ngi ci jotaay fii la ñu lay tegal photo bu mag nga delloo Sëriñ Fall. barke Sëriñ Touba waaye jëwriñ ji wax na ko léegi sa woyof ak sa mbaax rek a tax. fa mu bokk yal na yàlla ko fay yal na yàlla kattanal ci doole Seydina Mohamed soxna Xadi yow it jërëjëf sëriñ Pape gërëm na la nee na gis na taxawaay bu baax nee na amul sa fay yàlla mi am yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla kattanal ngay jigéen ju am jom di jigéen ju nangoo liggéey fi nga dëkk xam nañ la ci social xam na la ci ndimbal waaye xam nañ la ci yar ak kon dañu lay ñaanal yàlla nga yàgg ci barke Seydina Muhammad léegi nag sëriñ Souleymane dañuy jox moom it mu fësal yéeneem ndax bis bi moom day bisim sëriñ Pape la ñëpp ñëw ndax lu loo ci am dara doy sëriñ Souleymane bisimilah ñoo ngi jégalu bu baax dañuy wax sunu teewaay fii sëñ Souleymane maa ngi jégalu Baye Fall sama rakk yi di Serigne Fallou sama wajur tuddee ko Serigne Fallou Bañ samedi dafa am ci safar te dama bëgg jàkkaarloo ak yow man waxuma moom jégal lii man laa wax barke maam Thierno oh. Birahim damaa bëgg a jàkkaarloo yow sax bi waaye dëgg la bëgg bii dong laa fa bëgg nag leneen loo fa jàng nag man santuma la dëgg la bëgg bii rek laa bëgg. na sëkk de. Eh, yoo xam ni. bu ñëpp di dem dañ ko war a yóbbaale muy kàddu Serigne Cheikh Mbacke mi toog balay Serigne yow boo toogee ñëpp war a dégg say kàddu xam na ne waxuma ko ba tey bi dama koy ray waaye bu ma gisee nga toog lewet lool te li yow rëy lool nga waral koo mën a wane waaye nga doxee ñu ànd ak seer. benn boole benn booy la di la way di la waxtaane Serigne Sadio. lii de moo war lii de moo war a doon di sëriñ papi buy tàmbali si ndawal fooy añee sant ko fi gàll ba def tabax papi buy tàmbali si ndawal fooy Salut, boo ko sañee day moom laay Sëriñ Tuuba ñun yaay sunu wéetal Ahmadu Bamba mag ñam ñëpp wax Ahmadu Bamba ñu màggal bi sama ji Ahmadu Bamba Sëriñ Tuuba Allahumma

xëccoo woon dara boo xëccoo woon dara boo ñëwee doo toog fële fii mhm. waaye xam nga ni cër ni ko Pape Diouf xamee nga ko xamee nga xam nga ni cër kenn du ko xëccoo yàlla mooy xool fa ko neex mu def ko la ko neex lim def ci yaw ku la ko bañal it def na ko ci yow ndax sa ndax sama maam rek doy na kattan waaye nga ñëwal góor fii jàmbaari lislaam gi jàmbaari sëñ Bamba ñu waaye ja jàmbaari sëñ nga xam ni li mu liggéey ci réew mi moo tax tey ñëpp bàyyi lépp ñëw nga ñëw toog kuy sa maam Cheikh Ibrahima Alaaji Maalik di sa waaye sëñ Bamba ay sa mhm. yow ñu ne Cheikh Ibrahima barke Rasulullah bu ñu kuy sa maam nee Cheikh Ibrahima sama kuy sa maam nga ne El Hadj Malick sama maam waaye sëñ Bamba sama maam. Mhm. waaw soriwul de Serigne Mamadou Mbacké Serigne Cheikh Astou Fall Serigne Bassirou. déggal lii Serigne Bassirou Serigne Touba. waaw soriwul. et. Eh, yàgg naa doon Serigne Cheikh Astou Fall. 77. Serigne Cheikh Astou Fall. waaw 716. soriwul de. Serigne Mamadou Serigne Cheikh Mbacké. Serigne Mamadou Serigne Cheikh Mbacké. Serigne Bassirou Serigne Touba. Serigne Bassirou Serigne Touba. kon moom fu ko neex tibbee. dama ni. gars yi nan nan wax naa gaal gaal gii waaye gaal gaal gii toog. wallaahi maa la ko wax. xam nga ne gaal gi bu toogee nii gars yi bëgg a dem Touba boo ñaanee ñu dem Touba. nga ànd ak sa yar bi ànd ak sa personnalité yi ku la jàpp xam ne sëñ Pape may sa maam fàllaw bu sa borom ci kenn. Mbàkke ba lay sax boo toogee war ngaa toog boo toogul war ngaa toog fii dama ni jotaayu Serigne Pape Diouf sëñ Serigne Bamba nga ma sag la waaye liggéey ni ko kii li sa maam def ku ko def am limoon ko deful doo am limoon kenn ko ci sept ans la def ci géej gi moom sa sept mois sept jours moom sëñ Bamba tegul jin tegluwul jin tuubloo na salaan si kàkkam si kaa naa taal taalub jàngo yi raam loo doomi soxna yi rendi iblis sa jeewal ay sibinlahi inda jéewal inda jéewal iblis sa naa jidoo bi yow borom lam yalxuni sajjurun wala waxiidu wa umri ila jinaanidu borom afal yasiran masula hubban wala ilaha illallah borom kudu wanag dem gi wala farna salaan waaye kon billahi ñëpp dem ni la dama ni quran jaam ak ñangoor ñooyam dañoo màttandoowul kon màttandoo jaloore mooy borom. jaloore. ku ci aw yàlla nga yàlla nga màggal yàlla nga yegg Tuubaa na ko ñëpp wax. ah jaloore. jaloore mooy borom. jaloore. sunu Cheikh Mbacké Ba. Baay Faal ma ñëw xam naa di bëgg ngeen ma ñëw Faal ma ñëw ma ñëw wa sallallahu taala ala sayidina ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارة لهور دندون سقط عند سرسارة لهور